يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره يا الله يا من لا إله صل وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدر يا من قبلت بسماك بدر يا الله يا من لا إله héliport bi ak Cheikh Khadim bi nekk euh, moom itam def nañ fa lu mel noonu ba nga xam ne dana jàpp ne gan ñii ñëw ci magal te fa ñuy nekk di bëgg di soxlawoo di jokkoo ak seen waa dëkk ñoom defar nañ fa waaw loolu lépp nag tënk nañ ko euh, soxna faatu mi moom moo jiite kon expresso bi kii soxna faatu Sow kan kii Asim lu jëm ci xarañ yi foofu ci expresso rek moom moo moom moo ko jiite moom nag mi ngi wax ne ñëwoon na fi. sàkk woon ñaan ci yaram wi ba gis ci féex lool mu wax ma sàkk nag ne waxaat ma ko sëñ bi mu yokkal ma <laughs> waaw moom moom waa Soudanais yi ñu seen réew tam dafa jaxasoo waaw ñuy sàkku ñaan ci sëñ bi lépp dal am waaw waaw waaw waaw waaw ñoom ñoom ñoom ñoom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 mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant euh, man maay jiite Expresso Sénégal ànd ak tey ak mbégte ak sama équipe euh, Expresso Sénégal ñuy liggéey ci technique bi commercial stratégie am mbégte lool nekk biir Touba tey euh, di inaugurer suñu projet Adiya Expresso Touba gannaaw gi ñu demee ci grande mosquée bi dem ci université bi xalif bi dalal ñu. ñu am mbégte lool ñëw set si monsieur le maire euh, Abdou Lahad pour feddali suñu kóllëre wax tamit suñu euh, euh, mbébét yi ñu am tamit ci commune bi ndax foog nañ ne Touba moom benn bopp la amul mënoo def fenn bàyyi feneen donc te xam nañ maire rôle bu important bu muy joué ci ci ville bi donc ñu ñëw tey waxtaan ak moom ci yéene gi ñu am tamit ci commune bi ndax gën a yaatal projet Expresso Adiya Touba bi mu rafetlu ko lool euh, ñu ngi ko ciy sant di ñaan yàlla tamit ñoom mayee ñu eggali lii yéene gii ci connectivité bi ñu def ci grande mosquée beeg yeneen lieux yàlla may ñu ñu eggali tamit yéene bi ñu am ci mairie bi euh, ci seen ay soxla ñun tamit Expresso Sénégal ñu xool ñoom ñun ñu mën a taxawoo ci suñu liggéey ba lépp nekk ndam pour euh, pour Sénégal maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant bu baax maire bi sëñ Abdou Lahad Ka rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa mu yàgg fi ti ñu ngi leen di dalal jàmm ci fii ci dëkk bi soxna si yow nga xam ne yaa jiite Expresso Sénégal yaa mboolem personnel Expresso bi nga ànd ak sa collaborateur yi muy directeur technique Expresso ak directeur informatique Expresso ak l' ensemble des personnels Expresso bi ñu ngi leen di dalal jàmm fii ci Touba di leen sant bu baax a baax nag ci acte yu am solo yi ngeen def ak participation bu am solo bi ngeen def ci màggalu Touba bi muy addiye Expresso bi nga xam ne euh, defal nañu lu bare bari servi lu bare bari te bi ngeen ko defee ba pare ngeen def ko ci gox yu gën a am solo ci fi ñu koy soxlawoo ci événement bi nga xam ne mooy 18 safar di grand magal de Touba muy grande mosquée bi muy résidence Khadim Rassoul muy université bi nga xam ne mooy suñu infrastructure publique islamique bi gën a rëy actuellement ci ñun te fonk ko lool ngeen foofu yëpp ngeen fexe ba mu am fibre bi ba nga xam ne internet bi dana yombal liggéey bi ak yeneen barab yi nga xam ne euh, aussi laaj na ko ngeen def ko ak li ngeen ci dolli muy euh, carte euh, téléphone yi nga xam ne da ngeen koo joxe muy roaming bi nga xam ne amatul jafe-jafe ci ci ci bépp ndaje muy comité bi muy waa université muy waa kër sëriñ bi muy waa commune bi suñu bëggee jokkoo ci seen biir jokkoo bi dafay jàppanal te du du du fay dara te dolli ci sax beneen affaire boo xam ne suñu bëggee génn hors réseau bi danañu mën a crédit boo xam ne dana mën a génn ci tout les réseaux loolu nag muy jëf ju mag joo xam ne su ngeen ko defee donte sëriñ bi ngeen ko defal waaye communité bi dëkk ngeen ko defal dëkk bi ngeen ko defal l'islam ngeen ko defal looloo tax nag tey li ngeen def lépp ngeen ànd ko ak njaboot ak sëriñ bi ñi nga xam ne juróom benn weer yi yëpp yéen a ngi étudier di xalaat nan ngeen di participer ci grand màggal bi ba tey ngeen mën ko réussir nii ba an ba dem ci sëriñ bi ba sëriñ bi jox leen ak cantam ngeen ñëw fii ci résidence bi ah ci ci maire bi waxtaan ak waa bureau municipal bi ak associé maire yi ak meer bi ba loolu yépp ñu jottali ko kilifa yi jottali ko population bi waaye jottali ko taalibe murid yi nga xam ne yëpp ñu ci àddina bi fu waay mën a toll xam ne defal ngeen leen ko ndax fii kat ak bis bi ak dëkk bi lu fi waay def rek communauté bi nga ko defal te communité bi ñu ngi fépp ci àdduna bi kon nag jëf la joo xam ne su ngeen ko defee jaadu na ñu ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ sëriñ bi teg ñu fi di ñu liggéeyloo ñu teg ngi ay bëtam ak i loxoom ci ron porte parole muy Cheikh Bassirou Mbacké xalif général de Mouride ñu xamal ko waa communauté bi muy taalibe Mouride yi muy sénégalais yi ñoo xam ne def ngeen contribution bu mag ci grand màggal bi ñu ngi leen di sant daal di leen gërëm di leen tàllal loxo ci partenariat ci bépp loo xam ne produit bu ngeen di def te nga xam ne nit dana ko soxla ñu ngi leen ci tàllal loxo fas yéene ci ànd ak yéen di liggéey. ndax facilité lii dafa am solo ndax dafay di bokk ci li yokk dimbale population bi ndax nit su fekkee ne dafa mënul wàcc ay activité am pendant vingt wala soixante douze heures mënu faa intégrer mënu faa nekk donc ngeen fexe ba fu mu toog ci dëkk bi maanaam man di jokkoo ak bu dee si ay ab liggéeyukaayam la bu dee ak njabootam la bu dee liggéeyama mu mën a taal machine am di def li li mu war a def bu fa toogoon te loolu internet bi rek moo ko mën a may kon su ngeen contribuer ci internet bi contribuer ngeen ci développement contribuer ngeen ci sécurité contribuer ngeen ci wàll yëpp ndax dafay lu am solo ndax nit moom lépp loo xam ne mën na ko fu fexe nga ba mën a faj yitte wax yitte wala mu régler problème te du déplacé wu rek loolu def loolu économie lu am solo la ci économie ndax bu ñëpp bëggee déplacé wu wala mënuñoo déplacé wu li ñu war a réglé réglé wul loolu dafay nekk retard bu mag ci développement économique kon looloo tax ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal rek yàlla nañ ci dugg ak bisimilah rahmaan rahim génn ceeg alhamdulilah rabbil alamin di leen jaa xam ne aussi partenaire bi def nañ leen partenaire boo xam ne nii ñu ngi leen tàllal nañ leen suñu loxo ci wàll yëpp ci produit yi ngeen di def yëpp ñoo ngi sant nag. personnel expression bi yëpp di nuyu directeur général di ko teg ci sa loxo nga teg ko ci loxoom teg ko ci loxol personnel bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. يعزما من جالبات المال وبزن لسامي يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر واجعل مفتاح الخيور والمنام وخير أهل ورداء بالانصرام وسل يا رزاق والتسلما على الذي به أقود العلماء إلى صراط rawatina suñu doom bopp suñu Modou Kara ci liggéey bi nga xam ne ànd na ko yow ba li ngeen ci am ci ndam ngeen am ko ci ak sëñ Assane Boub mi nga xam ne moom jàmbaar la di am taxawaay coono ak yeneen bokk taalibe bi yépp di ñaan yi nga xam ne yéen ngeen ko fa def rawatina lu jëm ci Hizbut Tarqiyyah nga xam ne seen diggante yàgg na ñu koy yeesalaat ak li nga def ci université bi loolu lépp sëriñ bi ngeen koy defal ñu ñaan kër gi gën a barkeel bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah قائدا إلى خير الجنان زمان وإلى وكن لي الرجوع والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء